yéen sam mbokk commerçant yu Argentine yi may leen ma nopp ma xibaar leen xibaar bu neex bii yéenay borom ci jamono bi ñu toll da ngeen di am yitte yi am bagage yu rafet waaye ca yomb lool si la boutique taxaw ngir daldi ci indi safara si la boutique mi ngi ci Galeria Mega Compra local 89 indi nag ñaari promotion yu neex lool ba jéggi dayo may ma nopp bu baax si la boutique li ko dalee première décembre tàmbali na ay prix yu bees maanaam prix yi daf ko wàññi ba mu yomb lool amul moo xam yow mi soxla lente wala itam nga soxla cap ceinture bépp bagage boo xam ne rek dañ koy itteewoo ngir été ji ñu ne loolu si la boutique ne promotion bi yëmul ci loolu li ko tàmbalee 5 décembre ba le 25 décembre promo bi mag bi nag mi ngi noonu yéen ñi nga xam ni itam da ngeen di soxla jën di weex dem été ji si la boutique ni nag promo bi boo jëndee lu tollu ci 200 verres si la boutique dafay daal di jël kaaka verre jox la bu toll ci ñaax fukki lente su ci loolu xelu yéen yi nga xam ni da ngeen a nekk ay commerçant di jaayaat di soxla jënd ak jaayaat si la boutique am promotion bu am solo ci yéen moo xam ngeen nekk fii ci biir capital wala itam ci àll bi tàmm leen si la boutique am na promotion bu am solo ci yéen moo xam ngeen jënd bultu lente wala itam ngeen soxla jënd ay cap bultu naka ngeen di def ba jokkook si la boutique yomb na woo leen ko ci 11 37 95 36 26 11 37 95 36 26 wala ngeen woo Saliou Ka ci 11 36 94 37 14 ñuy fàttali nag Sylla mi ngi ci once bi ci Galeria Mega Compra dolli di ñaanal Cheikh Mountakhal Bassirou mu yàgg fi lool ci wér di ñaanal itam mboolem mudu mudd yi yàlla daal di leen defal été bu neex lool ba ngeen mën a daal di delluwaat ca Sénégal gis njaboot gi ci barke borom Touba Xaadimu Rasuul sant ku fegal ba dëppi ndabam ba fi kuy tal borosi ndawal fooy añee fooy añee njum te rey ku jëfe li le rawatina toog di xaaru bañ koy fooy